2 décembre est-ce que waajal nga ko yéen. pare nañ soo xoolee lii nga xam ne Guédiawaye ñoo ma gën a pare bés bi. waaw waaw. Pape Sidi soo xoolee li tey fii nga xam ne Guédiawaye ñoo ma gën a bëgg bés bi. man benn élément laa mu seet doom. dañ ma ngemb baaxoo wu ñu defe. Guédiawaye baaxoo wu ñu dellu ginnaaw. te lii mooy sas bi ma jëm muy le ak ñi may dajanteel pour le deux bu nekkee fit maa leen ko ëpp bu nekkee rab barki Cheikhul Khadim maa leen ko tëkk bu nekkee sant barki Serigne Touba maa leen ko ëpp fu ma jëm waaw ngaa ko ngaa ko yow ak waa Géejawaay waaw ñun. Géejawaay la ñu dëkk. Thank you. il est payé waaw volet festin parce que li ma mën a wax mooy la dooleel jëm et dans l'histoire du rap sénégalais et waa Eric Faye légende organisé ko tey man ak am chance war a marqué suñu histoire ci histoire hip hop li ma mën a wax rek. li ma mën a wax rek mooy. incha allah rabi dinañ def mobilisation bi ci war dinañ dem Grand Théâtre le 2 décembre ñoom aw ma lu ma leen di wax aw lu ma leen di laaj aw lu ma leen di ñaan ba ñu dalee jaayante ak man boobu ba léegi mu def at ku ci nekk di sànni sa morom ay picc ku ci nekk di def ay saaw xam nañ yan saaw moo gën a nekk it depuis bi histoire bi di ñëw yàlla nag nattu ba ñu am benn ruub. muy Baba Ndiaye yaa day dëgg Ndakaaru mais Pape Sidi Pape Sidi waaw li ma mooy li ma leen mën mooy ñu tëw ñu war a jàkkaarloo ma rek ñoom amul bind texte amul rab xam nga organisation bi woote nañ ne nañu jàkkaarloo ku nekk ñu jox la ay riim jox la ay thème li nga wax mu nekk sa génn sa maay tout de suite ñu daw ko dañ koo daw wala dawul ko fekk na ko ok donc li ma bëgg a wax mooy fekk naa ko dañ koo daw ak li mu daw daw loolu yaa ngi li ñu waxal tey dëgg dañoo daw loolu et puis li nga waxal defoo ko yow dayoo bi dina gaaw bu dëgg rek tey dëgg nit ñi nga amee constipation yow yaa kii dafa constipé ñu ko confirmé da leen a proposé ñu def benn poubelle ñu bañ ko ana ñi ànd ak Ndiaka. Ndiaka waaw est-ce que nekkul géej waaye sa mbokk yi dañuy yuuxu ndax da ngay fay pour boobu ñu laa day dig Ndakaaru bi da ngay fay wala réponse bi le deux nga koy joxe. xam nga fay bi lan la. waaw xam nga fay bi lan la mooy ñu taxaw man ma taxaw ñu jàkkaarloo. eh géej waaye am na ko de. xaaral maa ngi bëri ñu woo leen. waaw eh, waaw waaw teg nañ si ñun dañoo xam ne dañoo mën a yàlla béy. suñ ko fayee di yàlla. le deux dañuy ñu nekk si benn rythme. ñoom ñaar bu leen neexee. ñoom ñaar bu leen neexee. ñoom ñaar bu leen neexee. yow aar nga romb. ci boppam ak deuxième ci boppam bu leen neexee kii toog fii kii toog fii mooy tegal kii yu métti muy tëj mooy tegal kii yu métti muy tëj

waaye di téer emprunté téer nga jël deux cent jëndoo ko samedi vidéo li may rab ñu mel ni benn bomb bu nekk la lay taw day ne bomb gars yi jëloon tëb nga jël ci ma bomb gars yi la di teg bu ñu jëlee sama teg wala teg laa yor waa ak lu birig ngaa ko mel ne di teg di génne li may génne du jaar ci big yi ni may gën a gaaw ngaa ko mel ne di yóbbu saf ji ba ma toppee dama lay fekk ni ji dangaa def wala wala ko mel ne man dina lii waaye boobu tey ngaa yow danaa gis ne ngaa ko mel ne bandi bi ak tey ngaa yow mooy yëngal deretu Guédiawaye te Guédiawaye ragal dugg fi tapp dugg fi yaafu dugg naag mooy seen baay ci rappi maa ko wax tey maa ko wax ëllëg naagaay seen baay. loolu ah. naagaay seen baay. mooy seen baay. kuy seen baay. kuy seen baay. kuy seen baay. kuy seen baay. nee ngaa ka kuy seen baay. ngaa ka. mu am temps mu am temps. boo déggee Guédiawaye il faut nga dégg. boo déggee tey seen mel bu ngand bi. dama waa liiru. incha allah yi. waaw eh, eh, ay kaar. waaw ay oto. pour def si waa Mbour. waaw yóbbu leen xam nga la def. ñoom ñoom ñu jóge Mbour ñun ñu nekk Guédiawaye grand théâtre nekk fii tout près. Abdou Khafor Touré ak Lat Diop. waaw est muy laaj pour Diop di ministre des sports amuñu ñu Géejawaay dëkk Géejawaay ñoo ngi lay woo ci bisu Ngaka bëgg naa nga jënd billet yëpp yëpp yëpp yëpp monsieur le maire Ahmed Aïdara bëgg na nga jënd ay billet Malick Gakou ñoo ngi lay woo ci bis ñoo ngi woo ah ñëpp ñoo ngi leen di woo Aliou Sall leen di woo amul lu ñu géejawee géejawee yi di doon ñun nag géejawee su jógee dara ci géejawee moo ñuy dëngalaa ah. ñun amuñu lu ngaa ko benn le deux daal bëgg naa incha na nga jóg ñu feesal feesal grand théâtre ndax amuñu lu ngaa gaa nga géejawee léegi jiitaloo ñoo ngi woo Malick Gakko mu ñëw. waaw ak kii ah, euh, Kor Ndiak. Kor Ndiak Babacar Ndiak ñoo ngi koy woo ci bis bi nekk bu baax président la Diop ministre des sports. jërëjëf moom. Christian boy. Christian boy. Christian boy. Tarki tarkit. Christian boy. Tarki tarkit. Liiru jàng. Christian boy. demal sa yow. jaajëf waay sa mbéy mi. ñu ñu ñaangalee noonu la ñuy xeexee. oui ñu ñu ñaangalee noonu la ñuy xeexalee noonu la ñuy xeexee ci kaw. képp si bopp. kii merci beaucoup. merci. dina sàcc seen soxla bu wóor yi su ma yeboo. Sénégal dina sàcc seen soxla bu wóor yi. Tamra Bandé merci beaucoup. waaw ma dafa bëgg dina sàcc soxla bu wóor yi. merci les sponsors. waaw Abba il faut dire pour les sponsors. merci beaucoup. Wonixbet. oui. merci Air Sénégal. merci beaucoup Pepsi. merci Kirène. merci beaucoup ministère des sports. monsieur Toura Baldé de la LONASE merci. Béké. Gagner des combats et relancer ce qu'on va faire. On va commenter le, le freestyle tout de suite. Donc, one more time pour Guédiouaï. J'ai demandé à Sakin, Malik Ndoui et Bakne Vidéo de se rapprocher de la scène pour poser des questions à Bakne Bernier. Laska est là aussi. Laska est là. Tu es où, moi Laska, mon mec, Las Gacacas. How much we make, we're better Laska booy fen ana Laska Laska boo dee fen wala rey waaw dama doon jëw naka rek ah Talk about job. mais eh, bien bien que vous ayez le coach pour une démonstration tournez leen tournez leen coach tournez leen ngeen jàkkaarloo public bi